dem nañu Touba seeti fa ay chantier ci inondation yi gis nañu ci yoo xam ni euh, Touba ca kanam moo ko liggéey pour fexe ba booy dugg tuubaa bu fi ndox mi di taa ñu teel koo xam indi ci ay saafara gis nañ ci ay ay yoon yoo xam ne buñ ci jaaree xëy na yàlla dinañ ci suturaal. bu ñu fexee daal comme ni ko xalifa bi waxee bi fi président ñëwee wax na ko Serigne Mountakha nee na ko yitte la ci ñun ñu def ba nga xam ne ndoxum tuubaa dinañ ko réglé définitivement mooy ndox mu ñu naan ak ndox mi nga xam ne nii mooy assainissement bi ñu yegg seeg léegi ñu saafara lépp waaye na ñëpp xam ni amuñu beneen yitte bu gën a rëy ñu regle lii ci Sénégal waaye rawatina ci dëkk bi. bokk na ci li tax ñu ko def ko dafa am lu ñu indi ci projet bi lu tudd revitalisation des vallées fossiles ak kanaal di Kayor ak canal di Bawol fépp fu ngeen gis ndox daan fa jaar ci at ya ca gannaaw ci suñuy maam danañ fexe ndox dellu fa. borom xam-xam yi def nañ ci ay gëstu indil nañ ma dossier bi étude yu baax a baax la danañu mobiliser sénégalais yëpp mobiliser communauté yi mobiliser suñu armée nationale mobiliser képp koo xam ne yaa ngi liggéey pour ñu ñu liggéeyal ko suñu bopp. gas canal bu jógee Lac de Guiers mooy indi ndoxum Touba waaye mooy continuer ba zone des Niayes fépp fu ñu war a béyee mu dem fa maa ngi liggéey ak ministre de l'agriculture fépp pour que fépp fu canal bi jaar. moom itam mu mun faa ndox moo xam ne nii moom la béykat yi di béyee ak système coopératif maanaam daal pour gàttal gis-gis bu bees la ñu bëgg indi ci wàllu ndox loo xam ne lii fii ak 50 wala 100 ans incha allah dootuñu wax waxi ndox parce que danañ ko dugal définitivement ci biir réew mi.